Assalamualaikum, waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur sa sant di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla Sénégal yal na fi jàmm yàgg waaw tey nag boo gisee ma def vidéo bi dama bëgg a wax ak waa askanu askanu làmb laa bëgg a waxtaanal moo tax ma def vidéo bi pour dugal ko ci Facebook bi ñëpp jot ci waaw parce que man dama gis ne Sénégal boobu léegi dañuy wax lu bari ci làmb mais waxaguñ lu am solo ci làmb waxaguñ lu am solo ci làmb parce que dama gis seeni seeni wax ci làmb yëpp pour man waxaguñ lu am solo ci làmb parce que pourquoi ma wax loolu. parce que làmb li mu ëmb dafa yaatu dafa bari mais dama gis seen yu bari yëpp lu ñuy wax si mbër yu mag yi la ñuy wax ci mbër yi nga xam ne ñu ngi fayeeku ay millions ci la ñuy wax te fàtte mbër yu ndaw yi nga xamante ne nii dañuy doog a door wala ñi nga xam ne nii door nañ ba xaw a sori dañ leen di fàtte day mel ni bokkatuñ ci làmb te ñu am solo lañ ci làmb parce que boo dee xool làmb ñi ñuy wax mbëri ndaw yi ñoom ñoo tax ñu naan làmb ndax ñoom ñooy neexal làmb ndax da ngay gis ku ñëw dagg sa ne combat bu mag bi ngay seetaan combat bi bu ñëwee yenn saay ay machine ni lay doon wala mu nekk combat boo xam ne du saf dara am na suñu bëri ñoo xam ne tamit combat yi ndaw yi moo leen di indi si làmb ñii tous moo leen di indi si làmb ñi culture moo leen di indi si làmb mais dafa am lu am solo loo xamante ne nii waxtaane ko waaw parce que làmb dañ ne mbër mu mag ne mbër mu ndaw mais làmb léegi booy xool yàqu na su lu tax ma ne yàqu na parce que da ngay xool léegi mbër mu ndaw ñu fay la cent mille francs maanaam ñaar fukki junni wala ñeent fukki junni mbir mu mag mi ñu fay ko cent million wala ñu fay ko soixante million te yow mbir mu ndaw mi ñu ne yow yaay mbir mu ndaw mi li ngay daj mbir yu mag yi duñ ko daj te li ngay bëre mbir yu mag yi duñ ko bëre moo tax ma ne lamb jot nañu xoolaat bu baax li si làmb man nag dama gis ne télé yi ay Lutte ak ay Buzz ak ñoo ñëpp ñu ngi def émission si làmb mais defaguñ émission bu tax ñu naan émission émission bu am solo bu tax ñu naan émission si làmb defaguñ ko parce que làmb dafa nekk facteur de développement bu nga xamante ne nii tey jii ñu bëri mun nañ cee jariñu mais dama gis ne defuñu lool lamb dafa demee côté dafa demee bor. parce que lu tax ma ne dafa demee boor mooy da nekk mbër mu ndaw commencé di bëre dem ba ci biir yàlla teg la ay tolof tolof nga feebar wala nga am benn blessure boo xam ne nii da nga souffrir si àdduna Sénégal ñëpp di la seetaan monde lamb di la seetaan te bala ngaa bëree da ngay renouveler sa licence bu dee licence simple la da koy renouveler bu dee licence frappe la da nga koy renouveler toog a ñëw sëgg si làmb ji di bëre yenn saa yi ñu dagg la ñu dagg la xaalis mais yooyu yëpp di am si làmb te yow boo demee ba feebar dab la doo gis ku la faj. say mbokk bu ñu neewee doole da ngay dee man mbër laa te ba léegi bàyyiwuma làmb mais ñu bari yaakaar nañ ne bàyyi na làmb fekk bàyyiwuma làmb mais dama xaw a découragé si làmb ndax lu tax ma découragé si làmb li may gis si làmb muy lan man li ma gën a gën a gën a découragé loo si làmb muy kan muy Zil Zil Balde Junior Zil Balde Junior bu nekkoon écrit Faalaay Balde moma gëna gën yokk taxa découragé ci lamb ak benn mbeur bu nga xamante ni daanoon na fi usine doole tam doon busulu rek tam daanoon fi usine doole tam joon am problème mu ndik mais xoolal Jules Bada Junior dama sétane ay ay ay reportage man premier jour bi mu koy ndëk gis ko ndax tellement ka changé bi mu changé te jot na def dara ci lamb nek xalé bu ndaw mais dem na bu feebar dem clinique gu Alioune booy ñu jox ko ay ordonnance ay trois cent mille ay rajo yoo xam ne daf ko war a def si cinq cent mille ci clinique koo xamante ne nii moom moo nekkoon koon làmb moom moo nekkoon moo nekkoon ki nga xam ne nii moo jiite làmb léegi mu ne am na si yu mu def am na si yu mu deful te mu nekkoon bëri di bëre nekk si làmb ji chaque année mu renouveler licence am chaque année sa sa combat ñu dagg xaalisam léegi mu dem ba war a doon ba ba feebar dab ko si si làmb mu dem si al clinique Alioune Sarr ñu koy feeloo xaalis léegi tey loxoom jotul ginnaaw mu dem ba tele bu mu jëndaloon yaayam mu wëlbati ko dem di ko jaay kon léegi ana njariñu làmb ana njariñu làmb parce que fan yii ñu ngi doon wax ci affaire CNG FNG. mais CNG gëm na né tek nañ fi kenen de ah yalla nako yalla may xel mu mu lamb indi indiwaat lu bari ci lamb mais lamb dafa nek lu nga nek lo xamante ni ñu bëree nga koy dund mais ñu la ci nek parce que tay dem nañ ba bo nekké mbeur bu ndaw mënu lu jënd bolo gi tiké duñ la tëggal combat yow da ngay nek mbeur mu ndaw. am combat wëlbatiku guddi ket boo ketee doog a ñëw préparer sa combat nga dem si nit ñi nga yaakaar ñeen saa yi ñuy jox la ñii duñ la jox nga ñëw bëre nga am ay avertissement ñu dagg la xaalis waa léegi xaalis boobu noonu ñuy dagg mbër yi ak million yooyu ñuy dagg mbër yu mag yi mais millions yooyu fan lay dugg dafa am solo nag ñu lijjanti loolu parce que millions yooyu fan lay dugg parce que millions yooyu néew ñu ne mbër bii feebar na faj nañ ko ci saison bi du tëj ñu ne million yi ñu dagg si xaalis bi ñu dagg si mbër yëpp taada lii la toll mi ngi nii léegi léegi lii lañ ci def doo ko dégg kon nga xam ne làmb ji am na mafia bu ci nekk te mafia boobu tànk mi ngi ci làmb yi million yi ci benn ci benn cercle rek lay tourné du mus a dem. ndax imaginer mbër mu mag ñu fay ko cent millions mbër mu ndaw ñu fay ko deux cent mille wala cinq cent mille wala cent mille franc man sama premier combat cent mille franc lañ ma fay joxuñu ma avance ma ma ma boobu bëgg naa bëre ma dem jël combat bi bëre jóg est xam nga ne bi combat bi pare ñaata biñ ma biñ ma daggee ba pare man si combat bi yëpp ñaata laa si lekk huit mille franc junni ak juróom benn téeméer xam nga ne loolu doy na waar ci combat boo xam ne mbër mu mag mi dañ koy fay ay millions mbër yu yi ñu leen di fay ay cent mille léegi dem nañ ba léegi promoteurs yi non nu mu tëdd ni ménagères yi tey ji buñ amul si yow intérêt sax duñ la tëggal combat monsieur ménagères yu bëri yoo xamante ne ni buñ mënee am gel sa koñ nga leen di macro mun nañ la tëggal combat am si ménagères yoo xam ne ni da ngay gis koo xam ne mi ngi sa famille am doole. mu woo ko neexal ko pour mu mën la tëggal combat ñii boo ko mënta am ñu imposer la ne la ñaata bologu tikkee nga mën a jaay pour ñu wutal la combat moo tax làmb ji dafa doy waar ñu ngi wax làmb làmb làmb mais dafa doy waar man nag dama gis ne télé yi def émission làmb yépp waxaguñ na am solo si làmb te man nag pare naa pour leeral lu bari si làmb wax lu bari si làmb lu am solo parce que li ñuy wax yépp si làmb man émission yi ñuy def yépp dama gis ne amul solo mais dañoo war a commencer ci bopp bi. wala ñu commencé si geen bi jëm si bopp bi parce que lu am solo mu ngi si làmb di déroulé nit ñi naan làmb làmb làmb te xamuñu li làmb man nag pare naa tele bépp tele boo xamante ne yaa ngi dund làmb boo ma invité dinañ waxtaan ci làmb moo wax leen loo xam ne ni lu am solo la ci làmb mais man dama gis ne débat yi ñuy def si làmb yëpp amul solo maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp wasalaam maa ngi pare nag télé bu ma woo. dinaa ñëw ñu waxtaan ci affaire de làmb jaa ngeen jëf.